asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi suivre seen site internet bii di 24 actu ñoo dee siwaat ak yéen ci waxi Serigne Touba yi sëriñ Touba xaada lahu laahu maxtaara lahu mas naa jullaxit ba sëlmal di xool ba ci ay seng ci armée di njaareem yi mu ne ku moom taax yi ñu ne ko ay xabru la mu ne déedéet taax yi laa wax ñu ne ko ay xabru la mu ne buñ fi fanaan suñu borom bëggul kuy fo sëriñ bi xaada lahu laahu maxtaara lahu mas nañu koy laaj ndigal ci yeesal barabu sëriñ Mamoor Anta Sali nanguwul daal dina loolu lépp du ko jariñ dara la ma ko fa defal moo koy jariñ te def naa ko fa sëriñ bi nee na am na ñoo xam ne ëllëg duma leen gis ndax lañu nekkoon dama caa nekkutoon sëriñ bi nee na masuma def luy rusloo sama taalibe waaye bëgg ma sama taalibe di def lu may rusloo sëriñ bi nee na yowmal xiyaamati yàlla dala fay rus wala nga ànd fàkku yàlla rus wala yàlla rusloo la daa dina li ngay def ba yàlla rus la fekk yàlla rus nga ànd ak moom moo ko gën a yomb sëriñ bi mës naa dem tëgg ci boori sàmbe ca njaareem mu laaj lu mu ñu ne dañuy làmb mu ne duñ daj dara duñ daj dara duñ daj dara sëriñ bi nee na na ngeen sàkkoo am fa sunu borom la nga xam ne du ko jox ab yaafër du ko jox ab saay-saay te mooy ngërëmul yàlla sëriñ bi nee na sunu boroom dama wooteeloo woote naa ku ma wuy si wàcc nga maa ci des sunu boroom dama wooteloo woote naa ku ma wuy wàcc naa yaa ci des sëriñ bi nee seytaane saytaane bi xoolee sama digg ak sama borom nim jege te mu xam ne mënuta fexe ba mu yàqu naa ko ñaa ñaawal li ma koy ñaawale nag mooy kum gis meloo na nga war a mel mu ne la demal toddoo kale sëriñ bi mës naa tombal sëriñ Mbàkke bu su ñetti tomb ne ko Mbàkke yaa ngi nii yaay tomb bi ci digg bi li la sunu borom digal mooy tomb bi sa kanam lim la tere mooy tomb bi ci sa daa di ne ko saa soo jugee jëm ci la yàlla sa borom digal mbooleem li ngay bëgg di ko wut danaa la jërumaa xoole ñoo bokk fuñ jëm ba tey mbooleem li ngay daw danaa la jërumaa geesoo ñoo bokk fuñ jëm waaye safaan bayit noonu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu